sepertinya salaamaaleykum gars yi li xew Tiwaawan ni ñepp yeeng ngeen ko ah bébé yi seen yaay yi na leen yalla may xoluk muñ metti na torop os bébé ñoo yak seen bakkan os ken xamul ñoñu lan lan won lolu équipe nationale la leer na mané amna amon na ay Mbappé ay Cristiano Ronaldo ay Messi ay jaago Silva Wally sekk sax mën na cee ne ak Sidi Diop Viviane ak Titi kenn xamul maanaam doom yi lan la ñuy doon ay Kumba Gawlo Seck ay Aji Ousa non yàlla daal li yàlla rek ko man yàlla ne yàlla xaare na am na nag ñuy wax naan président Macky Sall da cee war a jóg mais tamit lakk gu am est-ce que Macky mën na ci dara ndogalu yàlla bu ñëwee moom ñëw na mais nag Macky dafa war a jóg ci sécurité Sénégal gën a gestuwaat réewam man 2022 bi baxul ci ñun dara ba coupe d'afrique bi dañ ko def ay sacrifice ay accident ak ray nit ak ah akit ah coupe d'afrique bi que jig nañu ci yàlla Jordiña